الحمد لله مجيد ذي القدر asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ndigalul cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke moom sëriñ siiru xalifa général des mourides yàlla na fi gën a yàgg lool te gën a wéex ci ndigalul sëriñ cheikh mbàkke xalifa njabootuk sëriñ abdul xaadir gi ci ndigalul sëriñ omar ndiaye xalifa sëriñ cheikh ndiaye ak mbooleem njabootuk sëriñ cheikh ndiaye gi daara tuuba baxdaat bu kaolack ñu am mbégte di leen yëgal ak woo ci laylatul xadr gi ñu amal at mu jot ci diwaanub kaolack ci quartier passoire ci jumaay sëriñ cheikh ndiaye gi ren ji ko alxamis alxamis di doon guddik ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci koor gi di dëppoog jeudi 28 avril 2022 ñu ci woo mbooleem kilifa yi soppe yi wëllëre yi daayira yi góor ak jigéen mag ndaw bàyyiwuñ kenn programme bi nii lañ ko tëralee bu ñu xëyee daañu amal njàngum alxuraanul karim ak i ziyaara jagleel ko Serigne Omar Ndiaye bu 19h ñu waajal ndog yu am solo ginnaaw bu ñu naafila ci la ñuy dundal guddi gi ci njàngum alxuraanul karim ay waxtaan yu am solo jagleel ko guddi gi nga xam ne moo gën junniy weer leeral yu am solo yoo xam ne tuutànki daara ji ñoom ñoo koy def ci kanamu mbooloo mi njàngum rajas ak njàngum kuréel mu yaatu ba bët set ànd koog mbooleem kuréel yi daara tubaabax Bagdad yi mbokk yi guddi gàngoog di guddi leelatu xadri gi daara tubaabax Bagdad di amal ci diwaanu Kaolack ci quartier Passoire ci jumaay Serigne Cheikh Ndiaye gi ñu ci woo ñépp bàyyiwuñ kenn di ñaan képp ku ci teew yàlla faj say aajo ci barkeb Cheikhul Khadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu